Eh, salaamaaleykum ami internet salaamaaleykum képp ku abonné salaamaaleykum képp ku seetaan DKR 221 dañu wàccaa si tali bi tey pour beneen numéro beneen micro trottoir tey nag dañuy poser question sénégalais yi laaj leen lan moo tax tey jeunes yi suñu sëy yi di tas da ngay xëy suba ñu ne la sëy bii tas na ñi bëgg a xam lan moo tax mu tas est-ce que si ku góor ki wala si ku jigéen ki la loolu la ñuy dem laaj dégg nga dañuy dem di ko yàggal dañuy dem laaj léegi danañ am lu leer si question boobu noonu bu ñu fa jógee incha allah ñu mën a xam leneen lu ñu defee Fallou Fallou bàyyi woon dugg si géej gi waay. géej waaw euh, jigéen ñi man ci li ma gën a remarqué li tax ñuy tas léegi bu ñuy démarrer dañuy démarrer à maanaam la plupart góor ñi dañ leen di wan loo xamante ni nii amuñu ko. deuxièmement bu ñu duggee ba ci biir xam nga loolu bu ñu ko gisul aussi mooy waral seen tas yi xam nga troisièmement euh, euh, jigéen ñi maanaam bu fekkee dañuy bëgganteeg góor. dañuy yaakaar ne amour bi ñuy amanteeg moom xam nga loolu mooy continuer or que sëy la plupart aussi jaamu yàlla la parce que des fois nga am mu neex des fois aussi nga am mu naqari bu fekkente ni da nga séntu muy neex chaque jour yooyu tamit dina indi ay conséquence ci biir sëy yi quoi. léegi dama bëggoon xam aussi est-ce que ñoom duñ dem ba si ñu doyal maanaam lépp li nga xam ne war nañ ko def si sëy dund nañ ko avant ñiy sëy est-ce que loolu taxul tamit ñiy teel a si sëy waaw euh, maanaam ci jamono bi ñu toll nii maanaam lépp lu ñu waroon def ci sëy daanaka daanaka jigéen ñi ñu ngi koy def ak góor ñi avant ñuy sëy xam nga loolu tamit euh, dina dina dina dina waral xam nga nga dem ba benn moment xaw ma duñ xaw ma dañuy wax nga miin nit ki dem ba benn moment euh, amatoo ci moom yenn satisfaction yi xam nga nga doyal pour dem wuti leneen yooyu des fois dinay am. mais la plupart tamit maanaam bu fekkente ni nii sëy bu dëgër rek la ñuy wax ah sëy du chaque jour muy neex loolu rek laay loolu laa am ci lu may conseillé jigéen ñi ak góor ñi xam nga et ñuy moytu di di ci bu ñuy bëggante di joxante seen bopp yooyu tamit dinañ indi ay dëgg parce que benn nit ki bu xamul sa valeur dëgg pour mu jox la ko du yomb xam nga parce que bu fekkee maye wuñ leen si jàkka ji xam nga ngeen am yenn rapport yi ak yu demee noonu day indi ay yebaate yu sew sewaan da ngay da ngay da gis ne carrément ku jigéen ki amul daraja ku góor ki tamit day euh, ku jigéen ki tamit day gis ne day gis ne ku góor ki amul daraja te daraja moom fu mu jógee si nit rek amatul dara xam nga léegi nag bu fekkee may nañ leen si jàkka ja nag day mel ne que day mel ne dañ leen a takkal médaille wala may leen ci église ba day mel ne dañ leen a takkal médaille médaille boobu nag ñu leen di ñu leen di takkal médaille boobu ngeen di fonk xam nga seen honneur lay doon ba foo leen jëm mun ko yób mun ko yóbbaale loolu aussi day bokk ci liy gën a dëgëral sëy léegi ma bëggoon a xam dernière question est-ce que góor war na nangu moroomu góoram takk rek mu influencé ko pour mu takk waaw non góor waru ko nangu jigéen ñi la plupart des fois dangay ngay bëgganteeg jigéen sax mu leer na la kii bëgg na ah am benn moroom bu ñëw ne ko kii neexuma ah, mu daal ciy génn góor tamit da ngay bëgg dara xam nga ah sa moromu góor ñëw ne non booy bi dafa gàtt wala dafa ñuul wala dafa kii xam nga ah influencé la nga obligé am kersa dem si leneen or que yow si sa biir xol bëgg nga ko ci góor ak ci jigéen yooyu dafay faral di am quoi et su ma sañoon tamit ñu koy moytandiku si nit bëggee nit beneen na bëgg naa ko xam nga ah, nga jàppale ko ci loolu donte moo xam handicapé la moo mën nga mën nga nekk mën nga yor sa lépp nga bëgg handicapé xam nga ah, bu la kenn découragé loo parce que yaa ko bëgg xam nga euh, handicapé aussi mën na bëgg keneen xam nga bu kenn découragé loo xam nga parce que moom moo ko bëgg kenn ku nekk li ngay bëgg ci sa xol yaa ko xam. merci. parce que sérieux ñu si déjà si mariage bi. sont pas sérieux se marient par intéret daal wala par attirance mais pas par amour looloo tax sëy bi du yàgg noonu euh, te tamit genre am na ñoo xamante ne seen xarit yi dañ leen di influencer naan leen genre sëy bi kii euh, comme par par intérêt bu dee pour xaalis dañ di wax sëy leen ci am ci benn doom après ngeen kii ci daal après ngeen boo ci amee xaalis. genre nga génn si sëy bi daal loo tax sëy bi du yàgg noonu. <laughs> léegi est-ce que tamit gisoo ne nit ñi dañuy marié maanaam góor wala jigéen ku si ne da ngay parce que sa xarit marié na mi ngi koy dugal statut yaa ngi koy gis am nga benn ñee boo ko ñee tax na ngay marié. waaw ça aussi ça aussi parce que des fois da ngay gis parce que gis leen ma rek lañ si lañ si lañ si bëgg gis leen ma surtout pour snap dugal ci réseaux sociaux yeeg yooyu noonu saa influence beaucoup de jeunes dugg ci mariage te bu fekk bëgguñu nit ki. loolu tamit aussi ça compte. En fait la majeure partie des mariages des entre jeunes aujourd'hui ne dure pas déjà la première raison c'est déjà le fait qu'il y a le manque de connaissances ils prennent pas le temps de mieux se connaître. Euh, tout de suite euh, la connaissance voilà vite fait et puis c'est le mariage et tout ça c'est un handicap la deuxième chose c'est que la majeure partie des filles de nos jours sont matérialistes euh, je m'excuse du terme mais c'est la pure réalité en fait elles sont matérialistes du coup tu vas voir quelqu'un qui est bien aujourd'hui mais que peut-être demain ils se retrouvent dans certaines difficultés, vu que la, la en question n'était pas habituée à ce train de vie, elle se décolle du mec parce qu'elle était là pour l'argent en fait, elle pas là par amour. Donc je me dis que la solution en fait à ce problème, c'est déjà prendre le temps de bien connaître la personne avec qui on est et ensuite euh, de vraiment respecter les engagements du mariage, c'est-à-dire rester la personne pour le meilleur et pour le jéem a convaincre sama copain ba mu takk ma dugg si alors que xamante wu ñu bu baax peut-être ak euh, miinante wu ñu daal loolu moo tax peut-être bu ñu duggee ci sëy après du yàgg tu vois il fallait que ñu xamante bu baax ba pare dañuy wax ni tant que def ko ak ki mënoo koo xam donc loolu tamit da ciy joué ba yàlla dafa njëkk a tudd tas soog a tudd sëy mais da koo gënalul rek mais loolu lu yàlla tudd moom kenn mënu si dara. est-ce que gisoon tamit góor ñi duñ dem ba si biir góor ñi changé mel neneen wala ñu naan ndéeg li baaxul wala yéeg laa. Ah, waaw loolu tamit ci la dee parce que góor ñi des fois bu doxaan bokk dañu wane benn jiko alors que après bu ñu la takkee peut-être du demee noonu xëy na ñoom tamit duñ gis li leen neex si jigéen ki je pas parce que amaguma borom kër mais damay dégg des fois que ku góor ki day changé commencé jëm ay clip te affaire yooyu. mooy loolu daal <laughs> ah, man pour man déjà maturité mooy manqué déjà parce que man damay faral di wax entre amis buñ naan gor ak baadoola mënuñoo ànd bu ma waxee baadoola pa baadoola pa mooy ki amul dara mooy si jikko parce que gor gi day am lu muy xaar ci keneen ki dina xaar mu fidèle dina xaar leneen ak leneen ci moom maturité fekk baadoola bi moom amul moom pour moom tout ak yi tout est déjà yi du du am lu muy lu muy euh, xalaat ne ah diw de lii war na ko soxla xaar ma ñoo defal ko diw de lii war na euh, tere na ma ko xaaral ma bàyyi ko moom pour moom tout est ak acquis moo tax ñaari kii du ñu mën a ànd déjà loolu man je pense que motif pour tas la beneen bi tamit mooy nit ñi duñu prendre le temps pour xam ki ñi ki ñuy sëyal non bu fekkee dafa dem ba ci biir am loo xam ne gisu ko mooy luxe kooku dafa ñàkk gore parce que bu fekkoon sëy rek ka tax a jóg ndax yàlla ngir yàlla du du du xaar ay luxe wala leneen day toog sëy lu koy fekk si sëyam mu fekkoon bu nekkee nag affaire physique boobu euh, mbëggeel lalu ko dara lalu ko physique kese ko lal te tôt ou tard dafay si tas lay mujjee. d' accord ñu laaj mooy est jigéen ñi wala góor ñi amuñu influence pour marier maanaam gis sama xarit mi ngi marier wala damay marier. waaw loolu moom am na ci surtout suñu classe gi xam ne âge bi ñu toll nii da ngay gis sa morom di marier de un mariage bëri ay ci mbir ci mbir def benn cérémonie boo xam ne une heure deux heures lay jeex nga ne man tamit loolu laa bëgg te comme amoo compréhension bi ndax yow ki ngay nekkal am na ko sëy li ci gën a importance mooy ñaar nit yi xamante seen biir mën a muñalante. man li may li ma li xalaat mooy mariage bu fekkee ñaan ñi ko kese la problème lu mu mën ci doon buñ nga toogee waxtaanee ko rek du jeex mais léegi mariage lan mooy problème ko rey famille ngay c'est pas ça cercle boobu yow wax sa jabar kese la góor ki moo war a jël responsabilité man sama côté quoi ku ki moo war a jël responsabilité te te te jabaram parce que sa jabaram dafa bàyyi papa yaay ak famille ñëw sa donc bu niveau bi nekkoon un si kër famille kër papa bu ñëw sa kër dafa war niveau bi war na dem quatre cinq donc niveau de vie am dafa war a élevé quoi di diine sax wax dëgg d' accord en parlant de niveau de vie est ce que tamit ku jigéen ki demul ba si mu gis li nga ko diggoon si début ba gisatu ko fa wala mu dem ba si gis ne ah kii nii liggéey lu baaxatul wala joxutuma assez wala doyal na. non c' est est le c' divorce souvent divorce du du boobu. divorce souvent c'est extérieur lay jóge problème bi c'est extérieur mais du concerné ñaar ñi kese bu fekkoon ñoom ñaar kese parce que ñoom ñoo bëggante kenn force ñu ñu marié quoi ñoom ñoo bëggante ñëw ñu ñu ñu ñu fas sëy donc problème mu mënti doon rek buñ ko waxtaanee ñoom ñaar kese di trouver solution mais souvent problème bi extérieur lay jóge ki rapporté li kii rapporté lii kii te euh, te góor moomul benn nopp bu góor waroo am benn nopp booy boo nee benn nopp boo nekkee benn nopp rek pour divorce am dafay yomb sa sëy quoi ki pour man moo war a protéger sëyam quoi. allez les amis c'était laaj nañ tontu nañu tey lii la ñu indiloon si DKR 221 seen micro trottoir di leen di jox rendez-vous si yeneen numéro yeneen micro trottoir di leen di fàttali gars yi muy gën di bar ñiy aimer di abonné di partager. gars yi peace out mi ngi cool mi ngi nice ba beneen yoon merci